ma leen wax sànq mooy li ma laaj. waaw rapport rapport boobu am na mooy premier rapport man boog Mame Mbaye Niang bi ma gis waaye comme que nee nga ñun ñëpp ñoo ko gisandoo lu loo xam ne mën naa cee wax mais sama àqulaay taala damay wax ni que am na janvier deux mille vingt quatre bii nii la génn mat na ñetti weer xaw ma sax lu tax ñu nekk ba tey ñu ciy wax ginnaaw rapport boobu noonu. pré rapport rap am na laaj nañ ma ci tontu naa donte am ñu japp ne ko li mbokk yi teewlu seen chaîne préférée seen njëriñ TV ñi ngi leen nuyu di leen jaajëfal ñëwaat rek ci euh, journal boobee ñuy wax critique moo xëy rek fajar teel rek daaju nay titrel la cour des comptes blanchi Mame Mbaye mu doon loo xam ne ndaw ñuy door a judd sax tey jii wala ñuy door a faire sax xam nañ ne moom journal bi li mu wax du dëgg Mame Mbaye Niang xam ne du dëgg ñun ñi ko xëy gis dem xam nañ du dëgg nañu fokkis ci premier ministre bi ak président Bassirou Diomaye Diakhar Faye xaar ndax it audit mënut a ñàkk te sax dafa am laaj bu ñuy sàmp bu fekkoon ne dañu ne Mame Mbaye Niang blanchir nañ ko set te wecc ci mbirum Prodac lan moo waraloon Prodac lan moo waraloon projet bi

moo gën a yomb sax kiitu gerte caaf ci nepp boo duggee ginnaaw bu nguur bu bees bi jógee ba tey ndax ñu bari dafa am lu ñu ragaloon ci nguur geneen gi ndax it képp ku wane woon rapport ne am na rek mën nañ la indil ay jafe-jafe Ousmane Sonko amoon na rapport bi waaye bu ko wane woon ca foofee nga xamante mooy tribunal dana am yeneen daan yuñ ko teg waaye boo gisee Ousmane Sonko ba mu toogee ba tey wala sax ba ñu jotee nguur gi projet bi muy Pastef ci njital Bassirou jomay jaxar fay Ousmane Sonko di premier ministre gis ñu ne rapport yaangi daw ci net bi comme tout lek malé ñepp ngi koy euh, partager du moins ñi ñang koy lire bay chamber ba xam li nekk ci biir té tamit sax bu fekké dañu sukkandiko ci sec euh bokku ci from Civil waxon na ni mbirum Ousmane Sonko ak mam bay nya même sax bu ne nguur gi ci bopam daanu na nguur gay ñëwaat ci bopam faw mu leeral ko kon dafa melni premier mi-temps la won te deuxième mi ci la ñu toll te Mame Mbaye Niang ci am na benn vidéo mu ne Ousmane Sonko rëccagul dañuy dem deuxième mi deuxième mi boobu nag bii moo ñor ndax deuxième mi-temps ba ñoom bañ doon wut moo doon fexe rek ba euh, mu mu du mën a éligible nga xam ne du mën a bokk ci élection yi. élection yi nag jeex na Bassirou Diomaye Diakhar Faye doon na cinquième président du Sénégal rapport yi ngi daw ñëpp a ngi koy liir di xam lan la naka la li ci des nag du ñun ñooy définir yoon bi euh, gouvernement bi di jaar ba am ay sources ba xam lu leer ba lépp leer te lépp nag day leer te dafa war a leer. leneen lu gouvernement bi def lu dul mu leeral mbirum Mame Mbaye Niang 94 milliards yi tamit Mamour Diallo 1000 milliards euh, Covid yi moo xam Aly Ngouille Ndiaye ay Abdoulaye Diouf Sarr lu dul loolu ñoom ci boppam dañuy dugal seen bopp ci leneen. kon mbokk yi critique ak obs ak ku mën a doon dañuy def sondage pour wane wala sax xool askan bi ndax ci boppam bu ñu waxee loolu dañuy dellu ginnaaw wala déet loolee ci boppam jàpp naa ne ñun suñu priorité mooy fexe. lépp wala fépp fu nu sàcc wala lépp lu ñu denc loo xam ne askan bi ñoo ko moom ñu fexe fu mu nekk ñu lokkati ko joxaat ko askan bi loolu rek la ñu soxla soxlawuñ leneen kon nag euh, di diversion yi nañu nañu xam ne ñun ñi nga xamante ne instant bi muy projet bi loolu lañu jiital nañu jiital nañu jiital wóolu leen yaakaar leen ci wàllum politique ak justice bi nga xamante ne Sénégal war na ko tëddee njaaxaanaay te xam ne Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye jaxar Faye lépp lu ñu wax askan bi te bind ko ci feuille ci projet bi loole ci bopp boppam dana